ci nak yaakaar naa ni sax uh, du gudd parce que sama pense moko ko waral gis naa tan yi jëlante ngeen di life lu neex sax mu ne xëpp xaalis de gauche à droite ma yaakaar daa am lo reere mbir ndax ëtt bi dama fi sey fasiyene fay fee jënd bàmmeel nak te lii tax ma juggé fini du ci yow lay juggé mba ci sama tons ma bëggoon lépp rafet rek te ni muy rafetee mooy yow nga bàyyi lépp mu sedd sa tons moo def boppam salade de fruits guu bu nekk mu ne mën na koo génne loo wax lu ne mu ne mën naa ko nga seen famille nag suñu leen bootee soleil sama yoon nekk ci da ngeen di woo seeni maam ya deewoon yee leen laaj leen ñun lan lañ liggéey ñoom lan lañ liggéey ba seen sët yi ñàkk fayda manqué di jël xaalis au ñu def ko ci kër mbaa ñu def ko ci loo xam ne mën naa jur leneen ak leneen ñu di ko këpp ci jigéen

wala yow da yaakaar ne man amour laay dund ak moom man je m'en fous complètement su ko doon sàcc di ko indi sax dama koy lekk ne ko dëriix mu rees ak jàmm lijjantiw ma ko loolu moo met nag parce que dundoo benn amour ak moom ki ne jigéen nga mel nga nu nga war a mel ah yow xool nga sa bopp laaj nga seetu yow yaay kan ne yow façon góor bu nekk mu nga ko am bu dul sama tons man yéena ma la sama tons yéena ma la ko benn yoon bu ma soyno nga changé doxin pourtant yow ndeysaan ak Ibou Laye sa famille bu ñu ko woon validé wuñ ko woon de ndax neen Ibulaay daa yore ay rab ba pare yorut pourtant dugg nga ci forcé nga yow yow fii fanaan nga fi sax di jooy pour ñu may ne ah, dama xam ne yow bëggoo sama tons yow nag dafa mel dangaa commencé iñaan parce que yow yaa ngi wax ay xaalis ay lii ay laa xanaa yow sa jëkkër du la jox man ma danga am problème dangaa juum wala ngaa bëgg a delluwaat nekk célibataire ñëw rang bi na de nekk célibataire dellu comme mel comme yow yàlla ma ko yàlla def dama ko ñaanu yàlla sax ndax fi ma toog nii xaalis dëj ma fi amul moo fi dëj waaw amul pur et dur sama yaay daa sol coquette yaayu sa dijaajoo yaay bu sol ay carax moo tax doomam jël xaalisam di ma ko këpp <laughs> muñal leen da xamal naa yàlla dogal nga li ngay def nii prostitution déguisée la xam nga la mooy différence bi mm. ñee dañoo am carte taxaw ci biti nga toog sa kër rek waaye yéen ñaareem te yàgg yàgg fa ngay mujj maa tey maa nga mën wax li nga def ni jigéen ñi dépassé nañ ko de xale yu jigéen ñi kooku di ci gis ma nga wékk koo saagam teel a xëy soxla buñ daraay góor jàppee ko noonu. yow doo dem yedd seen waa famille mais yow góor ñi kay ñoo dépassé jël xaalis di ko këpp jigéen boo xam ne takkuñu ko. koo xam ne wóorul la ne yow xam nga ne carrément kii bëgg la takkoo ko lijjantiwu la nga jël sa xaalis bi nga xam ne war nga koo def ci leneen nga di ko këpp yoon kay man manqué ma seen waa a manqué léegi nag soo paree say conseil nga jóg. lu ma jóg fi ma toog ah, kon faax laa fi def ni toog. ni ni ni Paa. Ah, kon toogal ñu xoolante. waaw ah, dancing aloud. نادو مسخر من نعملوا سوا للمجتمع ما ننفع فتاي باحن ما انت ما بقول واحد ثاني تبادي fan yépp maa ngi gis ne su may indi jàmm ay eh, ngay indi Suma ma ñëwee jàkkaarloo yow nga sa kanam gi sànni ko fële bañ li lu xewlu kare te pourtant au début c'était pas comme ça léegi nag boo ma gisee day mel ni sa xol bay bëgg a génn neexal naa la nag ba sonn faalewuloo ma côté bu nekk rek maa ngi fay waxtaan ak yow mais yow taxul sax nga lijjanti li may def bu ma yekkee añ sax fii nga koy romb doo ma lijjanti su ma lalee lal bi danga ko fay romb sans dem sa yoon dem xooli ji leneen wala nga defi leneen lu la neex léegi nag li ma bëggoon moom mooy nga wax ma bu fekkente ne bëggatuloo ma nga wax ma ma dellu sama kër ndey ak sama kër baay amul leneen. ok. allo waa mère waaw waaw moom laa lay wax waaw un million deux cent bi nga yor waaw léegi dama laa bëgg a yónnee huit cent mille yi pour nga dollil ma ko ci. muy 2 million waaw waaw dafa am lu ma ci bëgg daal xam nga rek yow moom xool naa sa jikko mu doy ma te loo moomul daal moom sa yoon nekku ci ok d'accord waaw merci Binta neexul ba neexul mm. waaye xam naa ne yow vraie femme de développement liggéeykat nga yow kon Binta boobu ba léegi kon yaa ngi épargner di def say dajale di ba mën a dajale ay deux millions jàmbaar nga jàmbaar nga yal na la yàlla la fat cat noonu la liggéey ñàq jëriñu am loo moomal sa bopp c'est très important mhm. am na am solo mhm. yal na yàlla defal jàmm amiin yaa rabbil ñëw pour def intervention selon ci que la quarantaine n'est-ce pas l'ol la. bien sûr. ok xam nga man que je soxla ku ma déggal ah li que je nga xam ko Moi.. man bi lay takk indi la ci kër gi damaa bëgg dox ci samay waaw di sama diit du comme nag que intellectuel nga may je jaay ba nga ne sais ba wis ma beneen muy fukk ak benn ma garde. comme yeen ku ne pat ngeen di bañ ni na pat baye la ci biir lu neex defal defal lu la neex dem nga ba seuss légui ñew nga pour def intervention logu amul man amu ben problème bu fekke ni affaire bëgg ñak bëgg mom su ma la bëggul duma def ci yow xaliss mënuma fay def sama xaaliss ba paré du deug bëgg la ba tak la indi sama bir kër wulbati ku naan la bëgguma la mënul neex su ma ne la bëgguma la waxuma deug sa jikko la bëggul sa jikko la bëggul ma yow amu ben problème de sa jikko la amal problème wante nak pat bobu nak mo mëna ñak ndax dafa mën a ñàkk parce que lépp waxtaan la. Hmm. bu ma defee naka sa dul noonu mais waxtaanal ak man. incha yow ñaata jours laa togg yow guddi gi ne a tap Fatou nga ju mën a jugal ñu waxtaan ba journée bi day niil ci noonu waxtaan rek lañ koy def après ñu tëdd loolu du yàq journée. ñaata six wala sept def nañ ko maag yow maximum maximum def nañ six wala sept yoo xamante ni chaque guddi bi day annulé dañ koy niilal dañuy yee di waxtaan ba suba ku ne tëdd. loolu du gaspillage ay détails la yow tamit. sa jikko dal am naa ak mom problème yow am oh, ak mom benn problème yow mom oh, aw ma ak yow. problème sama jikko rek du mo la neex. moma neexul kay. no bëgg ma man. dama bëgg man lu may dox nga ci dox suma ne la yamal fi nga yam fi suma ne la dépasser fi nga dépasser fi d'accord. man nga ko mënoko ko. duñu bolé dal na baal naa la. est-ce que baal nga ma ah bañ a baal la kay. waaw hmm. waaw. xam nga fimni ni mom ku ñu bettati yow la neex. hmm mhm. hmm àdduna moom kon ku jekku doo baale mieux vaut ngay jéem a jóg ci sa bopp bu baax a baax a baax xam nga man nag lii moom yàgg naa ci te mère Marie moom dafa dajale fii jeeg ju ndaw ji macha allah boor ñu natt bu baax. Mhm. Mhm, mu tegil ma nag te daal vraiment bayi xaalis bi ci moom day doon loo xam ne mi ngi mel ni ma nga fa tëdd di nelaw rek man saa yi ma ko soxlaa dina ma ko jox te comme que xam naa lii am. beneen rakk hmm? du lee ma am ko euh, Binta adduna amul solo lii nga def nii rafet na mère Marie xam naa ko ku jub ku wóor teggil na la demal jël sa xaalis yaa ko moom def ci lu la neex lu la saf waaye nag il faut savoir partager ndax aduna bi dafa jeex ba nopi amul solo nañuy bokk di dimbalante di jéggalante di yërëmante ndax lépp fi leen koy bàyyi te loo gis lu ne ci nettali rek lay mujj mm-hmm. waaye dañuy ñaan yàlla mu doon nettali bu rafet surtout nettali bu rafet yow xam nga ni yow yaay aaw buuru këram yàgg naa ko dégg te nga ma it boo ma jégul woon kon du may ay xalaat ay yenn ay ñaareel ak ay ñetteel da ma maa moo tax te nee nañ aaw na la jig bu la jigee loo yóotu jot ko aaw na la jig am loo yendoo fee yow yaay sama amoo rek lii lii leçon de morale la nit bu sa jëkkër meree ba ngeen di juboo da ngeen di kii yëkkati nga jox ma nag ko defee bii mooy sa dernier jéggal bii mooy sa dernier jéggal xam nga jox nga ma si silam naa ko boo dee nii rek ma envoyé la photo bi di nga xam ne bii mooy ah. sa jéggal bu mujj bi ah, kon baax na bal naa man naa la ci lu ah, nga installé ko de application la dox si lu neex ah kon neex na yaa sa jëkkër nga ciy dox application la dee ko def hmm. loolu dara à partir d'aujourd'hui téléchargé naa ko kon baax na kon baax na loo gën a bëgg. rooti ñàmbi. waaw tamit c'est le <laughs> ñàmbi c'est de. Hmm, yow xam nga ni tamit damaa xam li nga bëgg ma di ko def dëgg neexul. xam nga yow sa jubóo bi da ko koo waaj da nga koo programme bi xam nga lii sponsor nga jàpp. ah tamit <laughs> ah, nekk ak yow moom ay sponsor yu baax yu hmm. kon neex na. man maa ngi ñëw delluwaat ci biir ay galère bi yaa ma gën a xam. defal loolu. on a gën a gaawee rek merci. kii salopard yi di dof dof la bu ñu leen ajoo aju ngeen di bañ bu ñu ajoo ne tey moom zéro zéro zéro zéro pendant trois jours léegi ngeen décédé salopard ñemey la mission ba pare te ñu leen réglé ngam nga say noonu de béggal say soppe <laughs> waaye ci loo de. déggal maa ngi nii. waaw namm naa la. raw na lu bari. dama génnoon juste à côté rek. ah sa loxo de ngi ci soos. Eh, yaa ngi sama say noonu béggal say <laughs> soppe wax ci ëtt bii tey ay awa ku yàq sa mbokk koy defar di sa ñijaay di sa waxeet. soo amee soxla mu taxaw ci di defanteeg waa kër gi lu nekk ñu ragale koom xel su ñëwee yàgg wàññi ay garaatam ci kër gi boo fi amee soxla ku koy lijjanti soo fi amee problème ku ko fii lijjanti Fatou Kiné mi nga xam ni réew na virgère na la ma ñam saf na mën naa wax ak àddina yaruñu ko xamul waxin jëngul saat demul Dakar lekkul salaat xale bi xamul gara ci dëkk bi nga topp ko loo waddal mu for loo waddal mu for te li ma gën a naqari sax mooy danga koy yëy ba yëy kali soxam maa di nga sóoraale sa bis ci kër gi kër gi da bëgguñu kenn ku nu aj boo lal lu mat laa duubul li tegle ko ci ba muy ñett ndax booy daanu bañ a defeenu say bañ di booru bu yeboo nga sóoraale sa bopp de yaa ma woon sa kanam ba tax ma ñeme la li am solo moy li ma la bëgg wax moy mbiru ki kan njuuma lii ci kër gi. ñuuma la. ñatu ñuuma fi nekk. fat ki ne meek lamina bu reey bi melni yorox lay bu diwoo laalu di dem kër mbépp. ko ki lay wax ay mbirum dama jël décision ferme nak à partir d'aujourd'hui gis nga ki ñëw diko fi sét si bu. bon ma nijaayu aw je sais jël naa décision dinaa ko may tàgguwuma ko nag dama koy yëgal kot damaa bëgg nga wol ma ko ma wax moom lii kat ba nga ko waree def dafa yàgg mel ni newoo ci kër gi tey kilifa dafa am yoo xam ne kilifa waru ko sax a seetaan bu kunta damam daa mel ni xaar laa koy ndey le Fatou soda ni nga wax yëpp dëgg la mais dama sës soda sama nijaay moom laa njëkk a waxal avant may xak ak ne ah mais yow lii neex na ci xol neexul ci xol yow kër gi may sëy comme ni nga ko waxee Fatou Kiné yaa gën a xam jikkoom ah sama nijaay yaakaaraan na romb na dugg ci kër yëpp ba mu des ci kër gi may sëy du dëgg ndax nit fa nga nekk fa nga mën a sagalee sa bopp moom yàgg na maa sagal ni nga ko waxee léegi problème bu mu am moo ko daan réglé waaw mun ci woon continuer lam mo lu fi jar mu lonkonte fàkki ne bay ngora yo di ko ala bu du jeex ah gis nga ñin ñi dañu mën doxaan mënu ñu dañu mën premier te ñu deuxième dama la bëgg xamal nga fàkki mi nobul kenn ni mu mel ni ndayama ko ci baali mbaranam gi mu nekk ci dëkk bi ku mu gis deeni man na la mbaran waxuma la dara gàttaayam mu daaju ni patunda du fi jóg fii ci mbaraanam gi lay dee yow na lay fat ki ne du yow nit yàgg na fa muy ñu ñëw fa takk fa rakki jëkkëram maa ñu takk fa ab jarbaatam nit na ci loolu du sa defet lu waay mënul neexul loo ragal dalay lu yëngu la ko yëngal kopp doole bako, bako da koo man bako koy financé doo ko ba bu yàggee da la iñaan ta xalat na sa bis ak Fatou Kiné ta ndayam ku mu waxal mu dugg ci. laaj na jël taw taaj na ko waxu sama fukki deug ak juroom ñaar de ñetté ya denc. di ko du neena mak bu wax mu juwo la dugg la. lay lay maa koy xaar awa kon bax na Fatou Kiné xam na ku muy dugg ak ku dul dugg de. lay Fatou da kay ma xamal la lolu gatché gey selam dem selam ko. mom gatché na ci am lu toll ni dakaro kess ta du ko tax mu doyal. mom gatché fere jew ko de yow mi di sey na kuy sey da ngay malu yaay réglé sa bopp génn ci fàtki ne ak sa nijaay sa nijaay bu amatul lum ko jox léegi mu ba ko bu téyee loxoom ñaari fan bu ko laajee mun koo mun léegi mu taxañ ko ba mu mel ni basan teg ko damaa xam li ma ciy daw <laughs> sama nijaay xëyul gontul gorul yettul ah, fu mu jël lim koy jox moo moo tax ma war cee wax nag parce que du ma toog ba ni kër kër kët ni këpp kaw boobaa man maay endossé lépp lu ciy métti ci man lay métti ah, donc du wax non munu ma ma toog ni croiser les bras il faut ma wax yow daal génn ci seetaan leen bu njawar yàggee léegi jàmbaar feeñ lu wa xam daa yàggul seetaan leen taba ko mën na ko bari ko ko defal jeex na su yàggee na yaam ne dangaa ñaan te bu ci yaam duggee yaam a gën a xam nga papaam yóbbaaleem la yóbbaale ma la léegi mu dugg ci su ko defee sa jàmm neex na ñu lay rootaleeg sa jëkkër bu ma la ne dinaa leen bàyyi dund en paix waxuma dëgg ndax diggante bi feeg maa ngi sama bakkan bi de ci ëtt bi di ah, nooy kon aba doxalal non du ma leen bàyyi kon doxalal do len baye kon doxalal Fatou ngok ya ngok ndax xamna ne la Fatou lay mom du yow. kokku mom ma sa ci wax la ko. ñoo ñewal ngay wii boo mënoon a jàng du la lesse wax rek. kenn du la kanj kon. wi eh, non ko fu ma topé la xam. ken xam ko. dina jor xatax. sa papa la

Euh, dama lay yëgal bu kunta mii ñëw fii di la seet si fii ci kër gi moom yàlla li fas yéenee may dinaa la ko may mu doon sa jëkkër par force A ou B dama la doon yëgal rek. yàlla <laughs> fàkki ne bu kunta fii du dootu fi jaabante. comme bëgg nga ko na takk benn yoon ñu muur la nga dem. <laughs> mu jeex Wah, way xana seen rap ci ndox la ne yeen saf ngeen xorom de. ah. yeen man ngeen ni mayete la laajoo ma sama abi mi man koku bugguma papa bugguma ko xaalisam dongo ma teewoon ci monde deh. bugguma ko de pour mu leer ok. ii ko seyal de. waaye yow imbécile kii boo bëggul di nga nek fi di ropat di ko mbaraan di lek di xaalisam nga ni te chaque jour ngeen di gisee yeen ñaar xaw ngeen di def di Fatou Kiné loolu jeex na ci sama kër gi fii benn gañu moo fi nekk te maa koy yeew man xale du may yaakaar yëpp ma dégg li ma la wax dama lay yëgal tàgguwuma la man du ma sangu xale di ma yërndu waaye papa sew nga jikko de mu ne sew nga jikko waaye kii nga xam ne danga koy may te bëgguma ko guddi jot ma war koo defal nuisé defal ko samay talon jaagal jaagal ko jaagal jaagal woon samay feem te bëgguma ko te sëy di jaamu yàlla ma war cee jur doom ju baax ju mel ni man comme ni ngeen bëggantee ba jur ma ma baax lool léegi ma jur doom ju baax eh nay neex ma sëyuma de kii kii kii doom raam ji kii mooy doom ju baax imbécile

kii. sax foo ko foo ko yóbbu rek gàddu àq. foo ko yóbbu rek gàddu kii fan la ñu toppee. kii di jëlul la dañ naan doom ja ndey ja waaye kii du yow ah. buy dee jur